sama gars may len di ziar ma ñewat ci ñaari door kat yi muy selbe Ndom ak Karamba ñu deglu selbe selbe nak bimi wax li fekk na senegal mané na 2 fekk na senegal door na Qatar 2 te leer na ko li dess ci match bi Qatar mu mënu ci fayu ba nga senegal jël na engagement solennel ndax sama rew Karamba mom tamit door na tane ne du bàyyi ni mu téye affaire bi bëggul maanaam bëgg ko baye xam na mentalité sénégalais yi xam na fi ñu toll niñ gëmee njabar ak niñ leen di naxee ñoom daf technique da naxee technique bu ñuy naxee nit ñi dañuy mel ne dañ leen koy jàngal maanaam ku la ci gën a wanaakaana lu man di réere lu man di nekk ku ignorant nu muy naxee nit ñi moom du ci du waaw nu ñuy naxee nit ñi moom ko nekkaale ignorant mukk mukk mukk mukk mais nag sénégalais bëggul yow nañ rek ñu di nax rek nañu tëltële di dem rek jàppale kii moom di ko jàppale ci nax gi. Macky Sall deful liggéeyam de xam nga ne lii kii waruñu ko war a bàyyi nii lii nii façon nit yi waruñu leen war a bàyyi ñuy train nax nit ñi rek. leen di may lépp rek ak Sénégal fi mu bees